wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayidina mawlana muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al azim wa rada allahuma an jami asxaab rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala xawla wala quwata illa billahi al aliyi al azim يا همة الشيخ اخضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد أيها المشاهدون الأكارم حيثما كنتم نحييكم بأفضل التحية تحية طيبة التي لا تأثيم فيها ولا لغو ألا وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokku jullit yi mbokku taalibe yi soppee ci yàlla àndandooy ci yàlla à travers euh, Malben TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di wàccee ku nekk ci wàccuwaayam di jiital ci nuyoo bi xalifatu faydati tijaani cheikh Mouhamad al Mahi ñu gën ko xàmmee ci xaadimul umma ko nuyu di ko wàccee ci wàccuwaayam wa baadahu nu aydan annaib al xalifa fi laasimati dakar cheikh Mouhamad al Amin Ibrahima Niass wa man maahu aydan min al ixwaani al Ibrahim wal banaati ñu ngi nuyu tamit euh, anatiq rasmi lil xadarati al ibrahimiya cheikh Mouhamed El Mahi Cissé ataala allahu umrahu wa baada zalika ñu ngi nuyu tamit euh, imam jamiatu madinati cheikh Ibrahim cheikh Ahmed Tijani Cissé yal na ko yàlla may wér may ko gudd fan ba lépp loo xamante ne bëgg na ko liggéeyal maamam rek ak nijaayam yi yàlla yombal bi barakati rasulullah barakati Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu tey nag eh, ñu fas yéene jàngat ak ñoom benn lettre boo xamante ne lettre bu kéemtaane la ci ay maana waaye bu am solo la ndax waxtaan la boo xamante ne dafa dox diggante Mawlana Cheikh Ibrahim ak sirroom bàyyi mu ne sirroom daf ko gane si am loo xamante ne sekk na ak moom ci waxtaan loolu nag yaakaar naa buñ ko jàngatee dinañ gën a mun a xam suñ sëriñ bi kan la ak lan moo tax ñu war a dagg ay manding ngir dem jokk ci moom lettre bi Baye mu ngi koy tàmbali Baye mu ne lii waxtaan la boo xamante ne waqaat bayni wa bayna sirri an rabbi maanaam waxtaan ak weccoo boo xamante ne wala xew-xew boo xamante ne am na diggante sirroom ak Cheikh Ibrahim waaye ci yàlla Baye mu ngi ko tàmbalee mu ne sirroom daf ko wax ne yaa ibrahim a anta waasirun ila allah bàyyi mu ne sirram daf ko ne yow ibrahim a anta waasirun ila allah ndaxam yow àgg nga ci yàlla bàyyi mu ne ko qultu naam waawaaw man àgg naa ci yàlla bàyyi mu ne ko wa dalili ala dalika ilmi bihi xaqul yaqin wa jalla allahu an yattasil bihi cheyin aw yanfasil anhu chey Mawlana Cheikh Ibrahim siroom dafa ñëw mu ne ko yow Baye Niass ndaxam yow àgg nga ci yàlla Baye mu ne ko waaw àgg naa ci yàlla te liy tegtal ci loolu mu ne ilmi bihi xaqul yaqin mooy xam-xam bi nga xamante ne xam naa ko ci yàlla waaye xaqul yaqin xam-xam boo xamante ne dëggantaanu yaqin la mooy xam-xam boo xamante ne dafa ànd ak zoq dafa ànd ak zawqu ndax Baye dafa wax ne yaqin ñetti xaaj la dafa am lu ñu tuddee ilmul yaqin am lu ñu tuddee aynul yaqin am lu ñu tuddee xaqul yaqin bàyyi mun a ilmul yaqin niñ ko mën a misaalee mooy ne yaa ngi dégg ñu naan safara am na ni nga koy déggee ci làmmiñ ñu dëggu ñi nga am ci kóolute nga xam ne safara am na waaye gisoo ko nga dox beneen jéego yàlla may la nga janoog safara waaye gis nga ko gis nga melokaanam gis nga gis nga maanaam nu muy jeexital waaye loolu mënoo ko seeri ci sa jëmm waaye bàyyi mu ne boo demee ba jaxasoog safara si su boobaa yow dootoo fa nekk sax bay wax bàyyi mu ne loolu mooy xaqul yaqiin donc xam-xamu xaqul yaqiin moo tax taalibe yi topp Cheikh Ibrahim mooy nekkul ne doyloo nañ ne yàlla am na rek wala yàlla mu ngi fépp waaye dañoo dem ba jeex ci yàlla loolu mooy xaqul yaqiin te loolu yëpp alxuraan indi na ko kalla law taalamuuna ilmal yaqiin la tarawunna al jahim summa la na tarawnaha aynal yaqin yaa ngi dëgg maanaam boo xamee di nga gis boo gisee di nga ràññee boo ràññee di nga jeex moo tax bàyyi mu ne liy tegtal ne man xam naa yàlla mooy xam-xam bi ma ko xam mu tegu ci xaqul yaqin mooy xam-xamu zawq xam-xamu mos bàyyi mu ne nag wa jalla allahu an yattasil bihi cheyin aw an yanfasil anhu chey yàlla màgg na màggaay boo xamante ne amul lenn luy jokk ci moom waaye amul lenn luy génn ci moom mooy def la bëgg a wax ne egg bi ma egg ci yàlla du àgg ak bërëb àgg ak xam la ndax yàlla bàyyi mu ne foo munti nekk yàllaa ngi ànd ak yow donc bu ñu waxee àgg ci yàlla du àgg ak bërëb waaye àgg ak xam la yaa ngi dégg moo tax cheikhaan yi bi ko bàyyi di laay bi ci nan la ñuy tarbiya def ko ne al wusuulu mooy al ilmu bihi wa illa fa kullu waasilun wala al maarifatu mooy ilmu bihi al ilmun billahi wa illaa fa kullu waasil Baay dafa wax ne xam-xam bi ñuy wax ne àgg nañ ci yàlla mooy ne da ngay xam yàlla ci xam-xamu xàqul yaqiin waaye nekkul ne da ngay jóge ci bërëb dem ci bërëb ndax yàlla mu ngi fépp ànd ak yow donc képp ku jàpp ne xam-xam bi jóge ci bërëb la dem ci bërëb la kooku daanaka li ko desee bëri na ndax yàlla foo nekk rek mun na la faa feeñu te loolu buñ toppee lettre bi Baay dina ko gën a leeral topp surroom mu ne Cheikh Ibrahim a anta waliyullah ndax xam yow Baay Ñas yàlla nga xam nga waliyu yàlla mooy koo xamante ne dafa méngoo yàlla Baay mu ne ko naam man waliyu yàlla la mu ne ko wa dalili ala dalika anni waalaytuhu bidikri sirran wa wa qalban wa qaaliba wa waalaani bi taysiiri umuuri almutaallaqa bi zaahiran wa baatina Baay mu ne lii tegtale man waliyu yàlla la ne dama méngoo yàlla ci di ko tudd yaa ngi dégg donc loolu mooy bidaayatu wilaayatu mooy ne dangay ngay commencé ci tudd yàlla lu bëri baay mu ne tamit waaye tudd bi mu koy tudd nekkul tudd làmmiñ kese dama koy tudd ci sama xol tudd ko ci sama ruuxu tudd ko ci sama mboolee mi cër yi moo tax yàlla wa waalaani bi taysiru umuuri al mutaallaqa bi zaahir wa baatina bàyyi mu ne bi ma yàlla méngoowee mu koy tudd ci mboolee mi sama cër yi moo xam yu feeñ la moo xam yu na bula yàlla tamit ci mbaaxam daa di méngoo sama mbooleem soxla lépp lu ma bëgg rek yàlla fajal ma ko moo xam lu feeñ la moo xam lu nëbb la donc li dañ ci déggee ne képp koo xamante ne bëgg na mbiram yëpp yéwén mooy na sax di tudd yàlla ndax alxuraan wax na ko ala bi zikrillahi tatma innul qulub tudd bi ngay tudd yàlla mooy tax sa xool bi daal te nit ki bu xolam dalee rek daanaka loolu dafay laafaale ci mbooleem cër yi du xool mukk doomu aadama di ko wax lu ñaaw ci làmmiñam du xool mukk doomu aadama di ko wax wala lu ñu tuddee allamsu bila ni yaa ngi dégg maanaam di ko raga di ko ragaju wala di ko xool xool boo xamante ne xoolul loraange la comme ni alquran di wax ne waylu li kulli humazatin lumaza ñi nga xamante ne dañuy ñaawal nit ñi ci seeni bët yi donc boo méngooyee yàlla ci di ko tudd ba yàlla nekk ci sa xol sa nopp dootoo ci dégg loo xamante ne lu ñaaw la demet ba mboolee mi cër yi daal dangay gis ne ci lu rafet rek lay nekk te nit ki bu fekkee ne cëram mi daf ciy def lu rafet yàlla tamit daf koy méngoo lu rafet di ko gane si ak lu baax ak xéewalam donc loolu déggin bu am solo la ci ne képp koo xamante ne bëgg na yàlla méngoo ko rek na soxoo di ko tudd ñu dem baay mu ne surrom newaat ko a anta aarifun billah yow Cheikh Ibrahim ndaxam yow xam nga yàlla baay mu ne ko qultu naam waaw waaw man xam naa yàlla mu ne ko wa dalili ala dalika shuhudi l ayna fi l ayri mu ne shuhudi l ayna fi l gayri wa taxqiqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayunin wax bii wax bu kéemtaane la bàyyi mu ne liy tegtal ne moom aarif la mooy ne janoo bi mu janoog jëmm yàlla ji yaa ngi dégg ci jëmmam te deful yàlla muy jëmm loolu noo koy firee mooy mooy janoo bi ngay janoo jëmmi yàlla ji yaa ngi dégg te dafoo yàlla muy jëmm loolu buñ ko bëggee firi dañuy dem ci alquran yonent yàlla Muusa yàlla wax nañu ci alquran ne mu ne wa hal ataaka xadiisu Muusa id raa naaran fa qaala li ahlim kudhu inni anastu naaran laalli aatikum minha bi qabasin aw ajidu ala nnaari hudan falamma ataaha nuudiya yaa muusa innani ana allahu innani ana rabbuka faxlaxna alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa wa ana axtartuka fastamin lima yuha innani ana allahu laa ilaha illa ana faabuduni wa aqimi salaata li zikra ila axiri al ayat alquran yàlla dafa wax ne waxal ataaka ndaxam dikkal na la xadiisu muusa nettali yonent yàlla muusa ci jamono bi nga xamante ne israa naaran gis na safara mu daal di wax fa xaala li ahlim kusu inni anastu naaran mu ne xaar leen ma fii man gis naa safara la alli atiku minha bi qabasin aw ajidu ala naari hudan xaar leen ma fi ma dem xool ne ndaxam dinaa fa gis loo xamante ne dinaa si mun a jaaroo wala dinaa fa gis koo xamante ne dana ma mun a gindi ndax Moussa dafa nekkoon di sàmm sàmmal yonent yàlla Shuayb bu comme ni ko alxuraan waxee ba mu ko sàmmalee fukki at yi ba mu mat yonent yàlla Shuayb bu jël benn doomam may ko yonent yàlla Moussa Moussa jël doomu Shuayb bu yóbbu muy soxnaam jëlaale lenn ci nga lenn ci gàtt yi nga xamante ne yonent yàlla Shuayb bu joxoon na ko Moussa ànd ak loolu dem ba ci àll ba fekk am na ñeent fukki at maanaam am na 40 ans yi nga xamante ne wax yu ci lay tàmbali Moussa mu jékki-jékki gis benn garab buy takk mu ne sama ñoñ xaar leen ma fii ma dem xool lee la. waaye muusa ba mu demee fekkatu fa garab yàlla la fa fekk yaa ngi dégg maanaam wax bi Cheikh Ibrahima wax ni laa jéem a taaliq pour xel yi gën koo mun a attan yonent yàlla Moussa dafa dem mu gis garab garab bi ne ko nii ana Allahu loolu doy na kéemtaan parce que yow yaa ngi doon jàpp ne yàlla mu ngi ci kaw asamaan wala yàlla fi mu nekk ak yow amul rapport nga jékki-jékki am lu taxaw ak yow ne la inna nii an allah man nii maay yàlla loolu yéeme na waaye li yéeme foofu mooy muusa garab la gis garab bu ànd ak safara di tàkk mu ne ko may yàlla waaye muusa ba mu jugee foofu loolu noonu mu gis moo ko yónni muusa ba mu demee ci na waxu ko ne man safara ak garab ñoo ma yónni ñoom ñoom ñoo ma ne maanaam eh, maa la def yonent loolu dafa kéemtaane yaa ngi dégg waaye li ci gën a yéeme li ci laqatu mooy ne yàllaa feeñu Moussa ci jëmmi garab waaye dem na ba jëmmi jamono Moussa ne yàlla euh, rabbi arini anzur ilayka yàlla may ma ma gis la xanaa kon li mu gis bokkul ak li muy laaj li mu gisoon xanaa du yàlla bi mu ko gisee ci la dem ci firawna mu ne ko innani rasulullah yàllaa ma yónni mooy li la bàyyi di jéem a leeral nii mooy ne jëmmi bi la yàlla ñoddee pour nga ñëw ci moom loolu pour nga dugg kese la waaye yàlla tënkuwul ci jëmm jooju moo tax mu ne shuhud al ayna fi l gayr wa taxqiqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayunin jëmm bu ma yàlla feeñoo ma nangul ko ko waaye du ma tënk yàlla ci feeñuwaay boobu yaa ngi dégg lool moo tax Moussa da ngay gis ne bi ko yàlla feeñoo ci melokaanu garab moom dafa dem mu ne yàllaa ma yónni te li mu gis bàyyiwaat na ko fa ñëwaatul sax di sujjootal lool wala di dagg ci xob yi naan maa ngi barkeelu waaye mu dem jëmmi jamono Muusa newaat rabbi arini anzur ilayk loolu moo réeral ñu bëri Muusa lu muy ñaan amoon na ko bu yàgg waaye li tax mu ne rabbi arini anzur ilayka mooy yàlla may ma ma janok yow ci tajaliyaatu bi gën a màgg bi ma feeñoo woon ndax boobu ba muy tàmbali la waaye Muusa tajaliyaat boobu mu laaj yàlla feeñu ko boobu yonent yàlla Muhammad moo ko moom moo tax mu xëm moo tax yàlla ne ko ci alxuraan xuz ma aataytuka wa kun mina lii ma la jot a may na nga ko na nga ko doyloo te nanga sant yàlla donc loolu ci Cheikh Ibrahim rek ngay ñëw mu leeralal la ko yaa ngi dégg loolu moo tax Baye lu yéeme la wax moo tax dangay gis ne ñiy jaamu xërëm sax daanaka li leen uteel ak ñi nga xamante ne ak ay aarif lañ mooy lan ñoom c'est dañoo jël yàlla tëng ko ci benn jëmm kese kese te buñ demee dañ koy bàyyi seen gannaaw. waaye ki nga xamante ne xam na yàlla fépp fu mu nekk yàlla day ànd ak moom moo tax boo xoolee sax ci sharia yàlla daf la wax ne aynama tuwallu fa sàmma wajhullah waaye loolu nit ñi dañ koy melale mel nii xibla la waaye du loolu parce que des fois boo demee ci koñ bi xiblu bi fii lay féete nga dem ci beneen koñ xiblu bi fee lay féete maanaam koñ boo dem rek ak xibla boppam te yàlla kenn la kenn li ñu jublu mooy ne bañ a tënk bi ngay ñàkk tënk yàlla ci benn jëmm moo tax fépp fu yàlla feeñ rek nga nangul ko ko moo tax bàyyi mu ne wa dalila ala dalika shuhudul ayni fi lgayri wa taxqiqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayunin lu yéeme la bàyyi mu ne tamit lii tegtal ne man aarif la mooy ne wa taslimi li qadaihi wa ridaa'i an saairi ahkaamihi bàyyi mu ne jébbalu bi ma jébbalu ci dogalu yàlla yi ak gërëmloo bi ma gërëmoo ci ay atteem loolu tamit dafay tegtal ne man aarif la donc aarif foog nga doon koo xamante ne da nangu dogal te foog nga doon koo xamante ne doo yem ci nangu dogal waaye da nga koy gërëmloo parce que natt mun na ñëw ci yow doo ci mun dara nga nga nga nga def lu ñu tuddee at taslim da ngay nangu te munoo ci dara waaye Baye dafa wax ne at tafwid moo gën a kawe mooy li ñëw ak nu mun munti mel yow amoo ci sax namm amoo ci bëgg amoo ci bañ maanaam lu yàlla def rek noonu la moo tax Baye mu ne aarifu man taraka muraadaatihi li muraad al xaq arif mooy ki nga xamante ne dafa bàyyi namm-namam yaa ngi dégg li muraadatil xaq yi jublu namm-namu dëgg ndax li tax mu tudd xaq mooy yàlla mooy dëgg te alxaqu cheyun saabitun laa yataxayar xaqu mooy loo xamante ne lu dëggu dafa sax te du soppeeku mooy aarif bu fekkee nee na na ba jeex ci yàlla amatul lu muy namm moo tax kooku bu ñëwaatee di woote ay woote waay kooku dañuy wax ne dafa dese lu bëri ndax neewatu fi ku fi neewatul waratul woote yaa ngi dégg bàyyi mu ne tamit liy tegtal ne man aarif la mu ne wa anna seydi wa sanadi wa qudwati alladi nadamani fi silki suufiyati alhaaj abdullahi qaala li innaka aarifun bàyyi mu ne liy tegtal ne man aarif la mooy ki nga xamante ne kooku suma sang la suma tëbbuwaay la suma ommatukaay la yaa ngi dégg suma jubalaakoon la nga xamante ne ci yoonu suufi bi ma nekk mooy ki ma ci sóob yaa ngi dégg kooku mooy alxaaji abdullahi ashingiiti nga xamante ne mooy shérif bu mag bi nga xamante ne moo xeeñtu woon xeetu faydu tijaani ba tax muy wër dem ba gis cheikh ibrahim mu ne ko anta kabiru tariqata tijaani fi zamanika wa sa tara min al qasadi ma lam yarahu ahadun min qablika min al awliya moo demoon di wër di wër faydu tijaani dem ba yàlla won ko kër ay xaaj abdullahi dem ba yàlla won ko cheikh ibrahim moo xam ne kii mooy borom faydu bi mu ne ko yow Cheikh Ibrahim anta kabiru tariqa tijaani fi zamanik yow ci tariqa tijaan yaa ci gën a màgg wa sa tara min alxasadi ma lam yaraahu ahadun min qablika min al awliya mu ne di nga gis ci noonu loo xamante ne benn wali yàlla mus koo gis te moom bu muy wax li Cheikh baa Baay Ñas daanaka mu ngi amoon ay treize ans yu demee noonu te kooku moo jur Mouhamadul Mishri nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci ci feru tijaan yi kooku weesu maanaam maqaama boo yaakaar ci wilaayatu weesu na ko ndax ci jamono moo nekkoon xutbaaniyat te bu muy nekk ci xutbaaniya ci la seene cheikh ci la seedene cheikh Ibrahim ne yow yaay borom faydu bi yow yaay kabiru tariqa tijaan fi zamanik mooy ne ñun li ñu yor nii rek dañ la koo téyal rek ba nga màgg mais yaa ko moom loolu lay tekki kooku nag moo ne ko yow aarif nga bàyyi mu ne tamit wa zalika shahida lahu bi zalika sayid al ajal ahmad biddi wa zalika shahida lahu bi zalika alaamat alxalifat alxasan altariq al muhammad bin sidina abuhu wa zalika shahida lahu bi zalika cheikh mohamad al hafiz wa zalika shahida lahu bi zalika al xatmi al xatmi tijani wa zalika shahida lahu bi zalika wa zalika shahida lahu bi zalika bil xatmiyati wal katmiyati shahid al wujud wa zalika zakahu llahu bi annahu wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha Baay mu ne liy tegtale man aarif la mooy ne ki ma ko seedal aarif la te mooy alhaaj Abdullahi Ould Hadj kooku ki ko seedal kan la mooy Seydil Ajal Ahmad Biddi kooku moom moo ne Xaaj Abdullahi Arif la waaye Biddi boobu ki ko seedal kan la mooy Xassaanu Tariq Mohamed bin Sidina kooku tamit moo ko seedal na Arif la kooku Cheikh Mohamed al Xaafis moo ko seedal na Arif la kooku Cheikh Tijaani moo ko seedal na Arif la kooku yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa seedal na Arif la donc silsila maarifatu Cheikh Ibrahim ñii ñoo ko seede donc Cheikh Ibrahima aarif kaamil la yaa ngi dégg loolu nga jóge foofu bàyyi mu ne sirroom mu ne ko a anta min al aqtaabi yow Cheikh Ibrahima ndaxam am yow ci xutbu yi nga bokk bàyyi mu ne ko qultu laa adri ah xaw ma de mu ne walakin samiatu almajaadib yataqawaluuna dalika wa rubbama ra'aw fiya xaalun saani wa mashhadu ma taqaddam bàyyi mu ne sirram daf ko ne yow Cheikh Ibrahim ndax am yow ci xutbu yi nga bokk te xutbu mooy maqaama bi gën a màgg ci wilaayatu ci baatin moo tax ngay dégg alquran mu ne waalamu anna fiikum rasulullah maanaam tajliyaat baatin boobu yonent bi ci la dellu te yonent bi jóge na fi mooy ne représentant bi koy représenté ci xaqiqa am loolu lay ki loolay foofu la yàlla dënk foofu la yàlla dëxëñ maanaam sirru qurbaaniya waalamu anna fiikum rasulullah na ngeen xam ne ci yéen am na ku doon yonent bi ku fi nekk xam nga walla jahiltum yaa ngi dégg euh, maqaamuhu donte xamoo leen maqaamam yaa ngi dégg lool bàyyi mu ne nag ah man xaw ma ndax xutbu laa wala lan laa yaa ngi dégg ndax bàyyi maqaamam euh, maqaama kat mi yettu la maqaama bu ñu bu ñu nëbb la parce que Cheikh Tidiane sax buñ koy wax ne ya cheikhu anta bi raxilin an daari dunia ayna al xalifa yow Cheikh Tidiane yow yaa ngi fiy jógee waaye boo fi jógee ñun ci kan la ñuy jàpp yaa ngi dëgg fekk gaay bi ñuy laajte loolu xam nañ ne daanaka qurbaaniyatu taxul ñuy wax ndax Cheikh Tidiane waxoon na ne Aliou Harazi Aliou Tamasini mooy doon suma suma xalifa waaye liñ ci namb mooy maqaama xatmiya katmiya ku koy doon moo tax mu ne alxalifatu fi aqsa ardin wa axfa lawnin wa abad zamanin yaati bi faydati anadaka fi dahsha fa wallahi laa yuntafaacu minna xaqiqata nafaci illa illa illa isa zahra saaxibul faydati tijaani Cheikh Tidiane mu ne man sama xalifa mu ngi ci dëkk bu sori ci jamono bu sori ci melokaan bu nëpp waaye bu ñëwee day indi fayda yaa ngi dégg te man kenn du jëriñu ci man jëriñu dëggantaan lu dul bi kooku feeñe te loolu ñëpp gis nañ ko bi Cheikh Ibrahim feeñe donc kooku niveau am ëpp na xutbaaniya gannaaw ëpp na xutbaaniya te kenn xamu ko moo tax ba du ko mën a leeral moo tax buñ ko nee ndaxam xutbu nga mu ne laa adri man xaw ma mu ne walakin samiatu almajaadiba yataqawaluuna zalika gis naa daal ñi jeex ci yàlla almajaadi bi mooy ñi nga xamante ne dañ leen nod dañ leen ñodd ci pay yàlla bi mu ne yataqawaluuna zalika ñu ngi koy ngunu-ngune yaa ngi dégg mu ne rubbama ra'aw fiya xaalun saani mashhadu maat taqaddam mun na am nag gis nañ ci man loo xamante ne lii mun nañ ko firee ne maanaam mun naa am gis nañ ci man loo xamante ne man xaw ko ci sama bopp yaa ngi dégg loolu mu ne ñoom daal ñu ngi wax ne xutbu laa mais Baye dafa wax ne majaazi bi ñoo koy wax mooy ne maqaama Cheikh Ibrahim boo jeexul ci yàlla doo ko mun xam yaa ngi dégg après mu ne ko wa hal tara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ka baad rijal yaqzatan lii gis nga maqtaa bi mosoo dégg benn wali yàlla bu ko wax nañ xool fi mu jeexee bàyyi mu ne siroom daf ko wax ne ndax am yow gis nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam yaa ngi dégg wa man ak ci nelaw ka baada dajaal ndax yow yaa ngi gis yonent bi ci ci yeew ak ci nelaw comme ni ko wali yàlla yi di amee xam nga maqaama bi nee nañ moo gën a kawe ci wilaaya parce que nee nañ képp ku àggagul ci maqaama ruyatu nabi fil yaqazati yow muccagoo ci salbu cheytaane seytaane mun mun na laa gaar mais boo àggee foofu boo dem bay gis yonent bi yàqdatan seytaane tuub na ci say mbir mënatul ci yow dara yaa ngi dégg moo tax bàyyi ba mu àggee ci niveau boobu lan la wax yaa ngi dégg ramaw ni rada ramil jimaari wa taw ana didd iblis wala ma ko abrahu sànni nañ ma ay xeer ci maanaam bi ñuy sànni jamra waaye xamuñ ne juum nañ ndax man ana didd iblis man maay contraire lu iblis yaa ngi dégg donc gis nga wax na la maqaamam moo tax baay bi ko sirram ne ndaxam yow gis nga yonent bi wala bokk nga ci wali yàlla yi gis yonent bi ci seen yeewute ak ci seen i nelaw baay dafa wax ne qultu arju dhalika min allah man daal loolu maa ngi koy yaakaar ci yàlla waaye daal leen daal xam naa ko uhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam wa aarifuhu maarifatan law adraktuhu xayan wa saaxabtuhu lama zaadani fi zeynika shay walhamdulillah Baye dafa wax ne man daal li nga wax ndax man gis naa yonent bi ci yàqzatan loolu maa ngi koy yaakaar ci yàlla bu fekkee lu ñuy maye la waaye mu ne man daal lenn wóor na ma uhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa ko yonent bi bëgg bu wér wa aarifuhu xam naa ko xam boo xamante ne law adraktuhu xayyan wa saaxabtuhu lama zaadani fi zeynik shay Baye mu ne bu fekkoon man fekkee woon naa jamono yonent di dund ak moom bokkoon ci ay saxaabaam li ma ko bëgg du yokk li ma ko xam du yokk lii ban wàllu yàlla nga mos a dégg mu wax ko wàllu yàlla boo dégg lu muy ñaan mooy gis yonent bi sallallahu alayhi wa ci jëmmam bàyyi mu ne man nag su ma gisoon yonent bi sallallahu alayhi wa bokk ak moom ñuy dund yaa ngi dégg wala ma bokk ci ay saxaabam ni ma ko xamee ak ni ma ko bëggee du yokk te ñun ñëpp nañu waxante dëgg ñun ni ñu bëggee bàññees buñ ko gisoon ci yàq zataam day gën a yokk yaa ngi dégg gént sax daanaka yokkuteef la waxuma la ak yàqsat bàyyi mu ne ñaar yooyu yëpp bu ko amoon ci yonent bi du yokk lool lu muy tegtal mooy moom mooy jëm yonent bi rek loolu rek ko mun firee te moom wax na ko fa inna nii man ahwa bi xaqi bi xaqi sifaatihi man kii ma bëgg dama dem ba gis ne ndekete man la bi xaqi sifaatihi waaye ci dëgg-dëgg jëmmam moo tax lii rek la mun a wax ci beneen wax mu ne fa law sawaruu nii fi lxaqiqati lam yaraw siwa shaxsi maxbuubi bihi natamataau mu ne bu fekkoon dañ doon portele dëggantaan portele mooy ne bu fekkoon ne nit ñi am nañ seetlu loolu lay tekki mooy ne dinañ gis ne man sama jëmm ji mooy jëmm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg loolu te wax na ko ay passage yu bëree bëri te daf ko waxee wax boo xamante nekkul chatxu waxu waxeewu ko ci manditeef waaye daf ko wax maanaam fekk mu ngi ànd ak dalab xel nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy jëmm yonent bi moo tax ci benn wax nee na képp ku bëgg a jëriñu ci yonent bi rek ci man rek lay jaar ndax jaam bu xeebu bii mooy buntam ku ko dikkalul jaar ci buntam doo dugg mukk loolu ngënee la yàlla la ku ko neex loo ko yàlla di jox moo tax bàyyi képp ku ko topp rek na nga xam ne yonent bi dëggantaan nga topp na nga xam ne mboolee mi jub yi dafa dajaloo ci topp Cheikh Ibrahim yaa ngi dégg donc loolu yéeme la bàyyi mu ñëwaat mu ne ko sirroom mu ne ko aturidu an talqaahu waa ndaxam yow bëgg ngaa gis yonent bi bàyyi mu ne ko qultu inni laa uridu fa in kuntu uridu fa uridu an laa uridu wa maa yuridu al fa dalika allazi uridu bàyyi mu ne sirrom ne ko ndaxam yow bëgg ngaa gis yonent bi bàyyi mu ne ko man de aw ma sax lu may namm man dama namul dara bu fekkee am naa lu may namm sax man yàlla namal na yàlla namal ma doy na ma walis man may nam mooy ne man bugguma dara mooy ne wax bu mujj bi daf koo yóbbu ci tontu bu njëkk bi rek bu fekkee ne man maa yonent bi lan laay nammati mu ngi mel nii ñu naan la Serigne Babacar wala Cheikh Babacar Diouf est-ce que yow bëgg ngaa bëgg sa bopp wala bëgg ngaa gis sa bopp jaru ko ndax nekk nga sa bopp amatul njëriñ yaa ngi dégg moo tax bàyyi lii rek la mën a tontu ci beneen bi bàyyi mu ne ataarifu ismillahi l aazami l a ndax xam tur yàlla bu nëbb bi ñuy nëbb tur yàlla bi nëbb te ñu koy nëbb ndax xam-xam ko bàyyi mu ne ko qultu al asma kullaha azimun indi man tur yëpp benn la ci man ndax boo xamee yàlla doo am fasale ci tur yàlla yi tur yëpp benn lay doon ndax boo ci jàpp rek jëriñu te boo ci jox doomu aadama tamit day jëriñu te boo ci ñaan yàlla tamit day jëriñu ndax boo xoolee tur yàlla yi li tax sax daanaka jaamu yàlla yi di ko xëccoo ngir bëgg koo xam mooy pour bu ñu ñaanee yàlla mu nangu waaye bu fekkee yow tur boo jël boo ci ñaanee yàlla muy nangu donc tur yëpp azam la ci yow moo tax bàyyi mu ne ko al asmaahu kullaha azimatun indi tur yëpp dafa màgg ci man moo tax naar bi ne ko tujaabu isa ma daawata allahu yowman wa laysa kullu man yu jaabu naar bi xool na cheikh ibrahim gis maanaam sariatul ijaaba bi ko yàlla may mu ne ko tujaabu isa ma daawta allaha yowman yow saa yoo ñaane yàlla day nangu waaye wala sa kullu man yaduu jaabu de nekkul na tamit ku nekk mooy ñaan da yàlla nangul ko waaye yow loo ñaan yàlla may la ko dégg naa tamit oustaz Barham Diop mu ne Cheikh Ibrahim mus na dem Mali am benn géwél bu koy tagg mais en français mu ne ko yaa Cheikh si tu demand au Seigneur yaa ngi dégg di ko wax daal yow boo ñaan yàlla dafay mel ni li ngay ñaan yaako ko moom bàyyi mu ne ko gën naa gaaw loolu sax te baay déggul français yaa ngi dégg donc mooy ne xam na yéene bi ba waa ji di waxe baay mu ne ko gën naa gaaw loolu loolu mooy tegtal li naar bi di waxtu jaabu isa ma daawat allaha yow man donc bàyyi nee na tur yëpp benn la ci man mu ne ko xaala ashhadu annaka min akaabiri rijaali al aarifin alladina tashaddu ilayhim alrihaal wa yuslimu ilayhimul baay mu ne parce que baay li ko sirram wax indiwul lépp ndax am na loo xamante ne nee na moom rus na koo indi waaye nee na sirram bu muy tàgg ak moom daf ko wax ne ashaddu annaka min akabiri rijaali aarifin maa ngi seede na yow bokk nga ci ponkalu kuy aarifi billah yi gën a màgg ci kawnu bi te war na maanaam ngir jëm ci yéen ashaddu ilayhimul rihaal tukki yu méttee métti jar nañu ñu dajeek yow. donc bu ñu tënk lettre bi daal dañuy gis ne Baye surram ba muy tàggalikook moom dafa ne fa tuuba liman sahibaka ma xusnu al i'tiqaad fa tuuba texe fa tuuba teraanga fa tuuba maanaam ngëneel ñeel na ki nga xamante ne ànd naak yow maal xusnu i'tiqaad ànd ak pas-pas bu rafet yaa ngi dëkk waaye wa waylun liman sadda anka min ajli i'tiqaad toroxtaange ñeel na ki nga xamante ne ki la dummóoyu wan la gannaaw bàyyi mu ne wan sarafa wa huwa yasni bi xayri bàyyi mu ne sama siru daal di dem ñu daal di tàggalikoo ci jàmm donc lii rek lañ ne woon ne nañ koo partage ak mbokku taalibe yi mu néew mu bëri mu am njëriñ waaye mu ñàkk am njëriñ tamit daanaka cofeel moo taxoon ñu koy def ak bëgg rek yaatal li nga xamante ne Cheikh Ibrahim bàyyi na ko fi ci ay bind ndax wax na ne ay bindam samaratu awqaatu xayaati mooy meññeetu sama dund donc yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla may jaar ci jaaruwaay bi nga xamante ne Cheikh Ibrahim moom la rëdd ñeel taalibe yi ndax Baay dafa wax ne man araada an yakuna maay fa yasluq tariqi bil afwaali wal aqwaali képp koo xamante ne bugg naa nekk ak man rek sama yoon bi ma rëdd na ci jaar bil afwaali ci jëf wal aqwaali ak wax donc yal nañu yàlla may dégg ak topp yàlla gën ñoo yokku cofeel ci Mawlana Cheikh Ibrahim izan ha nahnu balagna nihayatu hadha al minni ilaykum hubbu wa du'a wa salaamu aleykum wa rahmatullah shukran abone leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi